jërëjëf euh, Aliou Ba euh, jaajëf euh, Yacine Pouy jërë ngeen jëf internet yeeg auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 sama waa ji Mamadou Mohamed Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar bu a Ababacar di am mbégte di ànd ak yow saa su nekk. yéex ngaa ñëw ne Kals xaw nañoo rey. ah ci lan daa kiiw rek. ci <laughs> Kals sama xarit la de. ah, ah non non non. dama lay wax rek Kals daa ko na suñu auditeurs yëpp. dama lay wax. dama lay wax rek sama xarit la de. en tout cas kontaan naa trop am mbégte ànd ak yow. Euh, di nuyu passe partout mais également gërëm partenaires yuy àndal ci xalaas. muy mm-hmm. optique vision plus Sénégal di marque téléphone bii di Mion. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ak euh, Darou Salaam distrib Touba Darou Salaam distribution yi indi Dolka ñu ngi leen di gërëm bu baax baax euh, ñoom it ci ni ñu ànd ci xalaas. jaajëf suñu partenaires yi di kontaan ci ñoom bu baax passe boo nuyoo ba noppi rek na nga dem ci xalaas bi njëkk bu joxaat kenn parole bi. ziar ak màggal Ababacar lay ziar. koy fort de Ngaabu. da koy delloo république fédérale de Ngaabu ñu ngi bu baax. <laughs> baax na. di nuyu auditeurs rek internet ñëpp di nuyu ñëpp ñu ñu déglu ci waxtu wi. Mm. ak fu ñu dégloon a Ndiaye. waa Ndiaye nuyu waa Maabo. waa Maabo. waa Maabo waa Wàkk Ngoon ak waa Kër Saalum Ndiaye waaw man yi nga may wax. dëkk la. ok ah, da ngay leeral. Maabo Saalum. dem Saalum Saalum dañ maa woo. ñu lay kontaan nañ de. xalaas ki waa kër Saalum Diané ak waa Ndrame Escale ak. Ndofane waa Dingiraay. man xalaas gi moom du ñàkk nit dina fi ñëw laaj weccit man xam naa ne ni koy jaay te kenn yëg dina fi ñëw laaj weccit tamit ne li ko jaay dara jaru ci wala wala kii. remboursement waaw non kii day ñëw rek toog jël xalaas gi rek féete la ko fenn. noonu nit dina mës a ñëw ci classe gi taxaw fëgg këng këng ñu ubbi mu ne jolee ma sa wér. non dañuy nee naa leen ñi ñu may yóbbante te du yegg si ci yéen yow it yi ngay jaay te ñun koy dëkk yi di encaissé. waaw ak Cheikh Anta Diop dëgg yàlla nag Ndiaye. Ah. Ndiaye musuma jaay. musuma encaissé. Ah, musuma fayee ko cent franc yaa ngi Baltimore suba nga dem Ndarame Escale ginnaaw suba nga dem Maabo. Caroline du Nord sa fay dem. Californie dafa am lu xew sa ginnaaw uh-huh. Macky Sall président dafa amoon i gan. Mhm. ñu dajee King fat Palace. di waxtaan ci lu développé Afrique. kilifa banque mondiale bi di wax courant ba coupé. <laughs> président maire. sàkku ay sanctions. ñu am ñu ñu wàccee. am ñu wàccee. ah waaw dégg na am na directeur ñu ci dàq ay chef département yu kenn xam. sama laaj mooy bu ñu doon appliquer loolu ci réew ñu xanaa seen oo moom kenn du fa des. dañoo naanatuñu sax nag ñun dañoo naanatuñu fa. bu doon bu coupure amee ñu dàq ña ko yor xanaa kon seen oo moom fi mu ne ay intérimaire nekk. mais bien président comme euh, mu xam ni problème yooyu nit ñi ngi koy dund. cinquante secondes la ko dund. Ah, ah, ñi ngi koy dund ay vingt quatre bay bëgg a kalaate. Mm-hmm, mm-hmm. c'est bien mu xam ko. man sangooma bi may ñëw. mais mais. mais toog ko ci ndox mi <laughs> yow yow la ndox bëgg xam nga yaa ngi fi toog démb gis nga Ndiaye àdduna def gudd tànk ba pare. Euh, yàlla tey day eh, eh, déedéet déedéet déedéet non non non non non non yàlla ji tey day àtte au jour le jour démb lañ fi waxtaanee sama kilote bi. am na benn meer am na <coughs> jëmi borom daaru. ah mais li nga def nii tey. tey dama la koo ñaan. Eh, internet yi déglu auditeurs yi déglu. ñaan suturaal ma rek ngir jëmi borom. léegi nag Ndiaye hmm. bëgg naa lool. mais internet yee ma la gënal ak auditeurs yi à la demande général ma wax Ndiaye ci man problème la nekk paas nañ dem bu ko ñëpp laajee nag Ndiaye euh, boobu amatuma choix bi paas nañ dem ci xalaas bi njëkk. yow da nga fàttali Ndiaye léegi kilifa la. Ndiaye léegi kilifa dafa am ndombal tànk. ndombal tànk yee tax bu non bu weesoo directeur général de xalaas Ndiaye daa ndombal tànk fële ci Mamel. ah yow tamit ndombal tànk lee tax. dama la non dama la wax à la demande générale laa wax. ngir ah. jëmi ah, moo tax may la à la demande ah, boo ma nee ngir jëmi borom daaru ma ci wax. fukki nit ma ne ma ngir jëmi borom daaru wax ci. te muy ngir jëmi borom daaru man man la ñaan ngir jëmi borom daaru nga bañ a wax. man moom maa la ñaan ngir jëmi borom daaru. bu premier classe jàlle nga wax ci ngir jëmmi borom daaru ngir jëmmi borom daaru rus naa nga ñaan ma yow ma lay gàntal. ngir <laughs> jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndiaye. ñoom ñëpp ñoom. Ah, eh, xam naa nag xam naa moom xalaas bi moom tay dama koy bàyyil ngeen doxal. <laughs> Ah, <laughs> Ndiaye dañu def suivi démb. waa ji jóge woon samedi pour dem julli ji seen dëkk. Mhm. eggul wàññeekuwul. am na rebondissement. Hmm? waaw daa feeñ. non mais mbokk mi dañoo jékki-jékki rek benn numéro tigo woo numéro dama ko dagg ci fin bi. Mhm. parce que comme dañoo nekk ci enquête firi eh waaw firi waaw. Mhm. woo leen bi mu leen wooyee moom ci waxum wax ak ki doon wax démb ba mu waxee moom nee na ci condition yi mu waxee moom. Mhm. def ne fi mu nekk xamu ko te dañ koo tëj. moom waa ji réer moo wax loolu. waaw mu ne fi mu nekk xamu ko. te dañ koo tëj. bi ñu localisé numéro bi. Uh-huh. mi ngi nekk côté Louga. coté Louga waaw. aywa ah, li nga xam ne Sénégal gii la xew. fii Sénégal Ndiaye gii. Sénégal Ndiaye dëkku Sénégal Ndiaye Lat Joor Joob ak Alburi Ndiaye ñoom ki yooyu noonu. yow fekkee woo fi waa ji jëloon oto di dem Mbour ñu jox ko fi ay affaire ba mu tërëf. Alburi mm-hmm, boobu mu nga Amérique. ah voilà boobu yaa ngi woon fee Cincinnati ñu déglu jox bi ma la envoyé whatsapp bi dafa am information yu jotoon a am ndax magam le numéro 76 754 26 def ko woon mu ne ma kii niroon a baatu suma rakk ji ba ma ko woowee itam mu wuyu ma jaar ci tur bi Souley mu ne waaw ma ne Souley la mu ne waaw ma ne ko foo ne mu ne xawma fu mu fu ma ne te bu muy wax nag dafa melewoon comme ku nekk victime de drogue de insomnie wala de fatigue. langage bi vraiment leerul une voix feutrée faible waaw ba ma wax ko màgg ji ki yee sapeur nekk jëppal léegi nag moom moo waat ko bum mu ko woowee jot mu wax ak moom mu nekk ba ma jógee maanaam pat droit lañ jël benn oto oto lañu yóbbu léegi nag boobu ñu ngi ci benn néeg dañoo tëj waa ñëw tëj waaye numéro boobu nag xamun xamun ko xamun ko ni moom yoru ko woon bi ñu si defee ci kii bi dañuy def utilisateur privé numéro bi donc mu moo xoon mag nit ñi dañ leen tëj ci benn néeg xaw ma fan la nag bon son demi frère ci est sapeur nekk à la retraite demoon na cong ak dig itam moom nen na maanaam bu moo géolocalisation bi boori Louga waaw ba léegi nag amatuma maanaam beneen information mënatuma jot numéro bi son noon de Souley Diouf habitant le village de Maka Kawoon lu amoo du Dagaouki de doon jege nag samedi pour dem benn yóbbante ko sax village à vingt et une heures comme je le répète nan ko mu ne am na oto ànd ak koo xam ne mosoon na ko defal oto bi mais par la suite ñu waat ko jotatuñ ko information yi daal mu amee whatsapp yi yeneen yi laa ci bu jaam Ndiaye. xam nga dafa yoo xamante ne ji boo ko defee say mbokk ngay dugal ci fitna. Hmm. Euh, li ñëpp bëgg a laaj mooy ku ñu kidnappé foo mën a jëlee téléphone pour woote. Hmm, hmm. waaw loolu question la. te waa ji leeralul bi mu wootee téléphone lu mu bëgg. am ñoo xam dañ lay jàpp comme ñu nekk Malek yooyu wool say mbokk ñu yónnee xaalis pour ñu libérer la. mais comme téléphone bi nee nañu Louga lañ ko localisé. moom woote na neewul nee na ngeen yónnee ma xaalis c'est-à-dire dafa xaw a jaxasoo. ñu ngi ciy woote waat na jàll. toute façon dinañ dinañ ko dinañ ko topp da njaay. Hmm? waaw dinañ ko topp yoo xam ne di. maa ngi gis ci commentaire yi fii ñu ne nit ku ñu téye fenn teg la fa nooy mënee amee accès sa portable bay mën a woote wala yu mel noonu et puis woote sax laajoo benn xaalis ne woon nañ joxe temps. yenn yenn yenn saa yi de xam nga nag loolu ci ci xale yu jigéen dañ ko daan dégg njaay. Hmm. ñu simuler ay ay kidnapping yooyu dem ne ci lu leen neex li monsieur la daan wax. Hmm. waaye na xam nga bëriwul ñu koy dégg ci góor. xam ah, comme comme police dugg na ci. Ah. leer mooy léegi nga am ci lu leer. léegi ñu am ci lu leer incha allah léegi ñu am ci yoo xam ne daal nañu ma ci dugal suñu suñu mbokk yi. c'est comme mm. waa ji ñuy wax ne dafa dafa évadé pavillon spécial. cest diir dire nu mu ci mënti mel. Mm. toogoon ñu àtte la. Mm. nga nangu dogalu suñu borom. bu fekkente ne dañu ne yaa def. lawar war ñu def ko bu fekkee dañu ne defoo ñu bàyyi la nga dellu say mbokk moo gën a sedd fuuf li xew. ndax fi mu ne mbokk yi kenn nekkul ci jàmm. nag man nag foofu tamit am na lu tey sama xel mi lool. Hmm. ñu ne dafa feebar nekk pavillon spécial. Ah. après ñu dafa évadé ak feebaram bi nga xam ni moom la ñu wax ni moom la am ak xam nga man man man nag sama xel mi moo mën nar a indi ay problème xam ah, mais dañuy sukkandiku ci lu officiel rek. Mm-hmm. mais ah. mais mais aussi xam nga xam nga bi loolu amee Ndiaye amoon na information yu génn ñu naan dafa décédé. bi ñu wax dafa décédé kenn génnul demantir ko. Mm-hmm. ba ñu toog quelque temps après ñun dafa évadé. surtout ci condition yi ñu ko téye woon li Abba wax léegi léegi. xam nga non en fait dafa dese rek kan kan moo ko wax xam nga aussi booy démentir da ngay loo xamante ne ji voilà. Ah, ne ba keroog ñu ci xam leneen. Hmm. mooy jàpp jàppaat nañu ko nii la demee naa la demee. Hmm. li administration pénitentiaire bi wax ci la mën a sukkandiku. Hmm. comprendre nga. voilà mais man daal li ma wax mooy. nattu moom mënut a weesu ku ñu tëj ci kaso bi. toogal muñ sa àtte ba mu ñëw. comme moins say mbokk dinañ xam ne buñ la soxlaa ñu demee tel endroit fekk la fa. Hmm. mais évasion bi ñu wax bu dee am na. Hmm. mbokk yaa ngi jaaxle ñeneen ñaa ngi jaax c'est-à-dire dafa dafa yokk joote ji daal. en hmm. quelque sorte. dafa yokk joote ji. ñu dem. dëgg naa dëgg. Oh, yow lu Malick Dia def. Malick Dia dafa faatu ci yoonu dañ ko rey. koo xam dañ am nga mbokk bu tudd Malick Dia te gisatoo ko war na tool ci un mois. doon liggéeyee Dakar waa ji neen yaakaar naa ne Ziguinchor la dëkk. yoonu suuf bi lañ jëloon mooy ñi jaar ay Maleek ay Algérie ak yooyu. pour génn réew mi. rebelle kar leen rey nañ ko. Hmm? ca fan nañ ko rey. ci côté Tombouctou la wax. Oh. boori Tombouctou. te hmm. rebelle kar nañ ko doon nañ ko bal na. bal lañ ko doon waaw. ku lox loolu. waa ji mu ànd àndal. ki fekkee bañ ko koy def. ki fekkee kay. moom fi muy wax yow nii nii nii mi ngi Tunisie. booy booy yow ni nga tàggee affaire bi garaaw na de. ah noonu lañ ma ko tàggee. Ah, niñ la rek nga ñu ko joxee de ayca. waaw man nag euh, sénégalais laa te maa ngi jógee Mbour jëloon yoonu suuf bi actuellement maa ngi Tunisie nii dama jëloon yoonu suuf bi joge Sénégal jaar Mali jaar Algérie euh, jaar xaw a jaar Libye tuuti euh, quitté Libye kii na ñëw Tunisie wax ne am na benn waay bu tudd Malick Dia boo xam ne sénégalais la parce que man moom ñoo bokkoon yoon parce que ñun suñu combat yi ñu àndoon si désert bi euh, su ma jum benn sénégalais kese kese laa fa loon muy Malick Dia moomu te si yoon bi la deewee woon wante moom nag man li ma jaaxal parce que moom dafa ma jotuloon wax fi mu dëkk ci Sénégal parce que instant amuñoon temps sax bu ñuy waxtaanee métti woon na métti boo ne amuñoon temps lu dul ça ma dégg mu wax olof ma gestu ne ko ça va si jàmm mu ne maa si am sénégalais nga mu ne ma waaw après ci lañ toog noonu waxtaan tuuti mais jotuma la nekkoon mais su ma ma carrément ban ville la dëkk carrément Sénégal fa da doon daal la ma wax su ma juumul ko tey Casamance la dëkk képp koo xam ne Sénégal daal am na doom bu tudd ca nga toog lu yàgg déggoo ko xamal ne yàlla def na mu des ci désert. waaw non du côté Tunisie nag parce que boobu ñu ngi joge woon Tombouctou. Mali euh, fa côté frontière Mali parce que ñu def trois jours ci désert bi ci diggante trois jours yooyu nag dafa amoon ay robel yu ñu karoon ci àll bi bi ñu karee ci àll bi di doon ñu laaj xaalis am na ñu yoroon xaalis am na ñu yoru loon xaalis mais comme boo loon xaalis dañ lay torturer mën na la torturer trente minutes boo yorul xaalis yoroo téléphone dañ lay torturer trente minutes léegi ci biir trente minutes yooyu nag waa ji sénégalais la xam nga jikkoy sénégalais rek euh, affaire bu bëgg am fit man wax naa ko sax bi muy jéem a riposter ma ne ko bàyyi rek même bu ñu lay dóor bàyyi ñu dóor la parce que man boobu yoroon naa téléphone ak suma ma jumul cinquante mille franc CFA après ci lañ ko jël daw nañ trois jours premier jour bi deuxième jour bi troisième jour bi ci suba toj kar ñu moom laaj ko xaalis moom yoru loon xaalis yoruloon téléphone aussi puus te gars yi xam nga foofu xale yu ndaw yi sax dañoo yor fetal ma ne ko sawaay bu riposte mu ne ko bu ma puusaat waa ji ne ko looy def mu ne ko léegi nag bu ma ko bu ma la poussé tobeel bi ne ko bu ma looy def après mu noppi mu ne ko mooy dernier mbéjaat waa ji ci la ko benn booy bu ndaw sax boo xam la bal ci tànk après ñun ñëpp après ñu biñ dawee at ñun ñëpp mu li foofu commencé xam nga nit koo xam ne doo dañ la bal ci tànk commencé riposter di kii di foofu noonu di jéem a songaat waa ji après ci la ko gars yi dóoraat beneen bal moom nag Malick Diallo tudd ba pare ñun bañ yéegee suñ pick-up foofu lañ ko bàyyi rebelle si boobu ñoo ko rey ci àll moom moo ne ma Malick Diallo tudd moom dafa xaw a genre xeereer njool sew nii parce que man bi ñuy yéeg ci oto yeeg yooyu ci guddi gi bi ñu déparé Tumbuktu Mali boobu sax man ak moom gisante wuñ mais man moom ñoo bokk benn oto xam nga rek la ñuy dama dégg jékki jékk gis benn waay bu muy euh, joteel ma dégg mu saaga ndey parce que foofu euh, soo meree ku nekk ak sa làkk bi ngay dégg ci ngay wax ma dégg mu saaga ndey ma geesu quoi ne ko kon am na sénégalais bu nekk fii mu ne ma waaw yow sénégalais ma ma ne ko waaw ñu waxtaan tuuti nii rek mu ne ma Malick Diallo tudd affaire yooyu noonu Dakar la doon liggéey su ma ko tey Casamance la dëkk boo ko gisee karaw bi mu ngi sëq nii sax mu ngi mel ni genre dërëj yooyu noonu la def ba mu wàcc Eh, aw ma fotoom nag. jaay lii du ma ko may. Mm. aw ma foto Malick Dia. Mm-hmm. waaw yónnee wu ñu fotoom waa ji wax amul fotoom mais en tout cas daal ku am mbokk bu tudd Malick Dia nga toog mu réer la lu toll un mois. xamal ne yàlla def na la gën. yàlla def na la gën ca désert Tombouctou ba. fu ñu jëm feneen. Moussa Omar Gueye. Ndiaye maire bi dafa retraité di fayee ko pension. Mm-hmm. dóorkat yi woo ko la mu fayee ko woon ci pension ko teel. Ndiaye ñeeg may rey nii. Mm. Eh, eh, passe daf maa def léegi ay ma yor sama téléphone. techno bi. Mhm. damay laajte ku xam kan laay woo ñii ne ma boo wootewul KFC di commandé ginaar yaa ngi woote FBN banque di laajte sa compte bi fu mu toll. <laughs> nañ dem nga ni ci ci Omar Gueye nga ne lu Omar Gueye def <laughs> ñi rey nañu ma waaye ki yàlla rey nañu ma. doggale nga ñu. Ndiaye Ndiaye Ndiaye man ban. noo xaar noo xaar waaw nañ dem Omar Gueye tax ban ban ban ban responsable la am xalaas bi. mooy yow ngay génn di indi xalaas ak di ba pare. buñ paree xalaas man ak yow dañuy gisante. ah ok ñu ne Moussa daa gis appel bi sama portable léegi ma ne comme gis naa appel appel bi xaw ma kan la ku ma woo bëgg naa xam ku ma woo kan la ma woo ko ma ko wooyee mu ne ma moom dafa paan ci àll bi naa ko dimbale ma wool ko pàppam pour mu xam ko man ko man fu ma nekkee aw ma crédit aw ma lu ma koy woowee muy saraxu ma ba ma yërëm ko ma ma ne ko kon jox ma numéro bi ma woo ko ma woowal ko papam papam wuyu ma ma wax ko lu ko wax ne sa ma ne ko sa doomi nee na nga woo ko dafa paan ci yoon bi ci àll bi léegi pap ji bu ma coupé pap ji woo ko mu woo ko mu ne ndeke moom jox na ko après xale bi woo ma ne ma sama papa woo na ma jox na ma crédit wax nañ ba pare ma ne ko baax na yàggu rek papa ji woo ma ma ne ma doom def nga lu baax yàlla dina la fay ah dina la may ay ñaan ay ñaan yooyu ma ne ko baax na ñaan de baax na su ma ko mayee ma jël dégg ba pare mu toog ba mu yàgg mu woowaat ma mais ni ku ma xam mu ne ma na nga génne sarax boo génnee sarax bi kii ngay jël xorom suukar ñetti kayitu weer ak cent franc nga def ko ci biir siwo bi nga teg dugal ci sa doon lal bi kenn laa tànk waxuma la ubbi ko bul ko ubbi. na man man tam ma def loolu affaire bi foofu la commencé nag. ci léegi sax mu ne ma jox ma 3000 ma defalal kii kii ma ma liggéeyal la. ma ma kii ma ñaanal la. man kaw ma 3000 mu ne ma ñaanal rek kaw woo rek daf lay jox man ma woote ñu jox ma ma yónnee ko. boo mu yàgg ngoon mu ne ma yónnee ma 2000 ma ne ko ma 2000 man fan laa jëlee 2000 man liggéeyu ma xëy ma gontu ma mu ne ma yónnee ma 2000 rek ma ñaanal la noonu rek lay wax de man ma woote ñii indil ma 2000 ma jox nii la ñu commencé ba nii 2000 25000 15000. donc globalement ñaata nga ci def. ma moom ki ma njëkk a arnaqué 89500. ki mu ki xale bi daf ma mujjee boolewaat ak beneen papa. bi ma ko woowee ma ne ko yow ki nga ma boolee mu ma bu ko sonal mu ne ma bàyyi ko bàyyi ko. Hmm. kii eh, kii numéro bu ñu ko nu ñu koy waxatee. ma def ko li numéro am liste noire ma def li bi def. numéro yi lan la jàpp. numéro waaw numéro jàpp naa leen ñetti numéro la. xale bu góor bi ak ñaari paa yi. moom moom numéro fu mu nekk sonn naa yoruma dara li ma yoroon yëpp jël na ko. sa pension nga ni jël sama dama ko compter nii. dama ko jël kër ga. damaa dem ba kër ga. foofu laa ko compter ko. foo ko jëlee woon. trésor keroog le 27 ci boobu ma ko la ma ne compter ko nga yónnee ma ko après dinaa la def ñaan man ma yónnee. kañ la effet bi dañ ba nga. démb ci guddi démb démb ci guddi démb da laa ma ne doole waata cinquante mille man ak man ana man ak cinquante mille fu ma ko jëlee foofu lañu xaw a xaccoo ay ay kii hmm. ay kii wax waaw mu gedd mu ne ma kon yow léegi bugg la dara kon nañ ko bàyyi man ko man maa gën a buggul ñu bàyyi ko sax affaire yi noonu lay doon noonu la demee waaw ah. à peu près ñaata at nga am man man surtout cinquante sept. mais sama âge réetu cinquante sept. maa ngi defal sama bopp aw ma ku ma defal. sama jànk bi mu ngi fële ci ma nekkal nekkal. Mhm. gureel. sama set bi mu ngi gureel. Mhm. man kese maa fa nekk. si néeg di gis nga lii. Mhm. dama crise si guddi. ma matt sama lii ak sama lii démb añu ma reer ma ndax sama lii mu ngi métti dama mujj ruy naan aw ma dara dara dara ma ngi ñaan dimbal ku ma dimbal ma jël. 77 150 17 17 Ndiaye. mais nañu dimbale suñu maam ji nag. maire la dafa retraité pension lay lay lay lay lay lay jafandu. nañu ko dimbale te tere ko téléphone yi. waaw. ayca ñu.